man mhm. géejawaay laa dëkk dëkk naa benn jamono cité biyaa gi juste à côté sama studio fa la nekkoon si ginnaaw base fa la nekkoon bu ma ubbi woon sama fenêtre dam leen di gis ñuy entraîner donc te déglu naa témoignage wu booy bi wax ki wax ki xam li muy wax la parce que tour yi muy wax man am na yu bëri yu si xam te aussi je connais des gos yu mës a nekk base yi nga xamante ne rey leen ak yóbbu leen base rey leen moo leen gën par exemple je peux citer sama koñ la dëkk nee na ma man malal dem jeel moo ma gënal dem base. base mooy fan. base mooy centre de redressement bu nekk foofu booy base lañ koy woowee. baay Mass sama koñ la dëkk nga dëkk kër ñoom Daouda Ndiaye du problème mu drogue la amoon. Baye Mass problème mu bopp la am d'habitude problème dafa am problème mu bopp depuis temps booy mais des fois da doon déconné bay Mass boo ko waree yóbbu baas jaral na ko mu xaru ce qui veut dire que effectivement li nekk base c'est aussi un problème mm-hmm. musuma fa teg sama tànk dugaluma fa sama tànk parce que je n'ai jamais eu l'occasion mais dafa am léegi léegi lu ceddo wax loo xamante ne xawuma ci d'accord bi ndaw bi booy bi di wax nii dañuy soxla bon ñu jaayee ñu ko deux mille loolu munul nekk lu mun a nekk la. ñaata lay jaar. non dama ne boo si tu la prison de Rebeuss par exemple paketu cigarette li muy jar biir prison moo gën a cher li muy jar ci biti. les centres de redressement sont sensiblement présentés comme des prisons parce que boo leen gisee film yi vidéo yi ñu si wane effectivement ça donne l'air d'être ça pour man sëñ bi il il a voulu il avait eu la très bonne intention de redresser de rééduquer mm. de former mais boy c'est des malades dañ feebar la plupart dañ fa yóbbu c'est des ay boy la yu toog yu yàmbaa sonal wala crack sonal leen wala coke sonal leen loolu sëriñ mënu la faj loolu hôpital moo lay faj et c'est important de le souligner c'est des centres qui existent depuis très longtemps mais ñu ngi xaar ba ren on met le doigt sur effectivement on mais le doigt ci problème bi ce qui veut dire qu'effectivement l'État est défaillant et les quartiers on peur de dénoncer parce que effectivement statut wu ki installé centre bi moo tax parce que boo bokkee ci kër sëriñ walla ngay wuyoo ci benn turu tarixa nit ñi même bu ñuy wax ak yow si interview il parle avec toi avec des gants hmm. parce que dëkk bi moom moo présenté au mais bu fekkee dëgg rek moo ñu moo ñu tax a jóg parce que xulal xaq walal kaanam mural waxal dëgg donte dañ lay rey bu fekkee dëgg rek moo ñu tax a jóg il y effectivement base bi ma xam à Guédiawaye il y a problème il y véritablement un problème parce que effectivement man tur yi ma dégg dégg naa fa dégg naa fa ay tur yoo xamante ne xam naa leen et je ne peux pas munuma jox yenn nit ñooñu ma leen jox effectivement benn statut d'éducateur parce que effectivement amuñu ils ne sont pas formés pour ça mën nga nekk taalibe sëñ bi mën nga jàng ay xasida mën nga yooyu yëpp mais effectivement redresser c'est une formation nit dañ ci dañ la ciy tàggat dafa am ci ay école yooyu jógee am ci et cetera et cetera oui man bi ma bi ñu ubbee centre Guédiawaye hip hop centre de formation et de réinsertion des parents m'appelaient de la SICAP malal dégg nañ seen kii man leen non moi je ne suis pas un centre qui reçoit des enfants je ne reçois personne ñun musique la ñuy def ñi am chance. tu redresses par la musique yow. non ñi am chance on peut les au métier de la musique. on peut il y a eu des gens qui sont avec nous ki continuaient de fumer du chanvre avec qui on a discuté calmement yàlla def semaine faisant ñu occuper leen ci ay activités après finalement ñuy bàyyi. léeg-léeg sax ñun ci suñu bopp ñu tarxiis jam ñaari gars lañ arrière ma oui. non léeg-léeg ñu jam. maanaam looy wax man comprendre ma de lan mooy ay jam ñaari galañ ay. mooy je euh, ne peux pas prétendre. oui je ne peux pas je ne me j'ai pas envie de me donner un statut. de d'éducateur ou de woy tel maa am profilu damay defaraat mais je veux dire la question elle est très elle est très profonde. Mhm. fii boy yi. dañuy tox borne dañuy jël ay dañuy dañuy jël ay jorox mooy dañuy log pion fii booy yi dañuy jël ay compétence <laughs> fii mooy mooy ay pion la ay xeetu pion la a sa <laughs> fii booy yi dañuy tox crack fii booy yi dañuy pikiiru fii booy yi dañuy naan ay jiin fajar sec am na benn affaire boo xamante ne euh, booy yi am na ay 6 heures du matin la ñuy yeewu yenn saa di daje tuddee tuddee ko la matinale zig la matinal hmm. pour yeewu uniquement heure boobu 6 heures du matin daje naan ay whisky sec whisky sec ce qui veut dire que le problème il est patent hmm. donc en fait te en fait du forcément type de maison yooyu ñoo ko mun a régler hmm. oui mun nañ d'accord ni am nañu ñu fa defaru am na ñu fa defaru mais aujourd'hui li ma mën a li man lii sam problème mooy man bu ma ubbee ay bërëb pour ay nit di fa defaru waruma fa gëj war naa am information yi cinq sur cinq pour xam effectivement lan mooy situation bi lan moo fa am lan moo fa am présentement et j'ai l'impression que ni ma déggee sëñ bi gëj na ci kër yooyu wala effectivement xëy na buy ñëw ci kër yi am na lu bëri luñ koy nëbb ci kër yi donc en fait walla aussi ñi mu dénk. bàyyi bàyyi ci xel murit foog nga re tontu ci comparé gul ah, xaaral xaaral xaaral dina damay def tour de table dinaa denc yow kañ da ngay dajale ay tontu yu bëri la euh, ndax li mu laaj dafa am solo waaw ndax sëriñ bi yëgoon na li xew mhm. wala yëgu ko mhm. yërim yooyu question bu leer laa am pour yow j'ai bien nommé ni euh, ci suuf que